asalaamaaleykum mbokk yi janook ñun ci Touba Argentine TV ñu ngi fas yéene ànd ak yéen ci seen émission bii di jano bi jano bi nag di émission boo xam ne ni ñu ngi ci fas yéene dalal euh, képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci wàllu lasraar mbaa nga yëngu ci wàllu faju wolof euh, faju wolof ak lasraar nag sore wuñu ndax leen lu ci nekk gëstu lay laaj akum njàng tey jii ñi nag euh, ñu ngi dalal ku ñuy wax sëriñ Abdou Guèye Ridial yàgg nañ koo dalal sax ci kër gi waaye ci beneen Euh, émission waaye émission bi nag dañ ko jagleel spécialement euh, lépp lu jëm ci wàllu pajum wolof ak lépp lu jëm ci wàllu lasraar moom nag mu yëngu ci wàllu lasraar tey jii ñu ñëwoon fekkoon ko fii ci kër gi euh, ngir waxtaan ak moom it ci yu bëree bëre lu ci mel ni ki xalwa ak lu ci mel ni ki sayet ak lu ci mel ni ki lépp loo xam ne nit ki am na ko ci jaaxle ci wàllu boppam moom mii mu fas yéene leen ci gindi ci yu bari ba lan mooy domaine am dëgg dëgg dëgg dina feeñ ci émission bi kon ñu fas yéene ànd ak ci moom ci biir émission bi di ngeen ci gis numéro yi nga xam ne nii képp koo ko bëgg jot euh, da ngay jaar foofu ci numéro yooyu di ko jot incha allahu rabbi waa kay kon mbokk yee ñu àndak ak ak sëriñ Abdou Guèye Ridial. mbokki jullit yi maa ngi leen di nuyu rawatina mbokki taalibe yi di jiital ki nuyoo bi sëriñ Mountakha Bassir. di ñaanal suñu borom may ko fan wu gudd mu eggale ay naalam ci daraja lislaam te ñu ànd ko ak moom di nuyu mbokki internet yi yëpp di leen siyaar yéen tamit bu baax a baax. sëriñ bi ñu njëkkee ak yow ci listixaar gis nañ ne listixaar e, dafa bëri ay façon ku ne ak ni ngay defee listixaar e, yow ban a ngay def ak noo koy defee. waaw santaat yàlla rek istixaar moom bu ñu waxee ñaan rek ne istixaar ndax istixaar dafa am lu koy waral nit ki moo lay woone man dama bëgg nga defal ma istixaar. istixaar bi nag day fekk moom mu am ittey àdduna maanaam tawati poos wala tawati yaram euh, benn mu am ci jafe-jafe bëgg ko ko saafaral yow nga defal ko istixaar wala seet ndax seet ak istixaar daanaka euh, tur yi ñoo ñoo wuute rek waaye sori wuñ bu ko defee nit ki li ñuy njëkk a def ak moom rek mooy dañuy seet mbiram ba pare bu fekkee ne raba ko jàpp ñu ne ko raba la jàpp wala cat wala liggéey la yooyu yëpp seet moo ko mën a génne ay façon la nag seet yi am na bu ñuy def ci ramlu am na boo xam ne dañ lay jox seetu nga taxaw sa sa digg bopp ba sa wewu tànk ngay seetu nga jox ñu sa tur ak sa tur waajuru jigéen li nga bëgg xam ci sa bopp lépp incha allah danañ ko xam incha allahu rabbi dañ la ko wax wala boog danañ la wax liñ gis ci seet bi te yaakaar naa doo ko dindi boobu beneen la ci ñi sori ñoo tax may wax boobu ñi nga xam ne dañoo ñëw ba agsi ci man nag bu leen neexee ma jox leen bic ak fooy ñu génn ci bitti bind seen aajo pour wan la lu leer rek lem ko ba mu sew ñu jox ma ma yey ko ba mu mokk delloo leen ñu sànni ko ca sën ba dikk tadduree ma wax leen liñ ci bind wax leen insha allahu rabbi dinaa leen wax liñ ci bind wax leen ni ñuy def ba seen tawat saafaraw lool xam-xam la du baatin xam-xam du caaxaan asraar waaw asraar asraar dañ koy jàng doonul loo xam ne dañuy toog rek jàppee ko business wala ay kii lu ñuy jàng la kon loolu moo tax ñi nga xamante ne bii am nañ itte ci seetlu wala istixaara dañ leen wax loo xamante ne bi dina leen leer nañ incha allahu rabbi jërëjëf euh, waaw ku ne bitim réew ku ne ci biir réew mi jëflanteeg moom amul jafe-jafe waaye ku nekk bitim réew am jafe-jafe euh, yittewoo euh, sëriñ Abdou Guèye Euh, naka lay def ngir mën koo jot ak tamit jëflante bi nu muy demee ci gàttal daal nan ngay jëflantee ak waa bitim réew ci ku la yittewoo woon. waaw ni ñuy jëflante ak ñoom mooy wàllu ñaan rek ndax euh, xam nga nit ki fu mu nekk fu nekk rek war na faa mën a nekk nekkin bu baax ki nga xamante ne bii nag ki nekk bitim réew moom moo xam li mu bëgg ci réew mi ko defee bu wootee wax ñu ko ñu xool comme liñ njëkk a wax ñu seet. ba xam nan la ñuy def ba mën a teg ci loolu mu bëgg loxoom moo xam nga ne bitim réew Afrique Asie foo nekk ci àdduna rek te am numéro bi buñ dakk buñ yàlla mën naa dogal dañ la yónnee sa doo déplacé ndax liggéey ñoom yomb na ndax fa nekk dafa sori yaa ngi fii ñu nga fële e, ndax liggéey ak ñoom yomb waaw lu yomb ndax xam nga léegi e, affaire bi yaatu na yi ñoo lay yóbbu ak e, poste yi yooyu yëpp foo mën na ci àdduna rek dañuy yónnee ñaan ba Amérique Espagne Liban sax dañu fay yónnee ñaan kon xam nga kon loolu du jafe foo mën nekk ci dina rek bul am jafe-jafe ne fi ma nekk mënumaa jot ñaan yi. gis nañ ne juble yi dafa bari eh, mel na ne sëriñ su bëri léeg-léeg dañuy arnaqué yenn clients yi ci yu mel nii eh, lan ngay leen di mën a wax ngir ñoom ñu dalal seen xel. waaw li ma leen di wax rek mooy ñu bañ a découragé ndax fa ndox daan taa ba tey boo fa demee fekk fa tepp tepp ñëpp mënuñoo ànd di naxee ñëpp mënuñoo ànd it ñàkk xam dara kon mbo mbooloo téeméer nit ñoo seen rek fukk nga ca yoo xamante ne bii yu dëggal la ñuy doon yu nekk ci jub la ñuy doon yu am xam-xam la ñuy doon juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ya ci nekk di naxal nag bu la bu mu tax a découragé boo yàggee làmb rek incha allah di nga daj. mbokk yi ngeen di ànd ak sëriñ Abdou Guèye Ridial moom nag mu nekk sëriñu ñaan lépp mu di ko jëlee ci alquran nekk fii ci Parcelles Assainies unité 6 ci wetu dépôt gaz bi wala sax bu fekkente ne Touba nekk fu ci këram ba tey mbaa nga woo ko ci numéro yi lu mel ni 77 943 06 88 wala 76 642 46 04 kon mm, numéro yaa ngi noonu waaw so bi bu fekkente ne nag sa sa client day xëccoo kàddu mbaa muy xëccoo baat mbaa muy xëccoo suuf euh, mbaa lu ni mel ndax mën nga ko cee taxawu. waaw loolu moom defe naa ñiñ ci xàmmee bari na xëccoo mbir nag boo ko waxee nit ki la muy xëccoo moo xam muy suuf wala muy xëccoo kàddu xëccoo kàddu sax day maanaam nga nekk di dem fu mel ni tribunal wala police bëgg a jël ndam waaw bëgg jël ndam yooyu lu am la yoo xamante ne bi kii xëccoo suuf wala kii def examen wala ki nga xam ne dafay def permis conduire xam nga bu dee lu fu mel ni biti réew bokkuñu ni ñuy amee permi ak ñun seen permis dafa jafe waaw ah, mën nañ la defal loo xam ne boo ko defee sa poche wax la na leen la nga wax la nañ koy defandikoo incha allah boo demee da ngay jàll facilement xam nga fii ci Dakar rek wala Touba wala feneen da gis élève boo xam ne euh, note yi muy am wala boog lu ñuy xëccoo mu jël ko te fekk jàngam àggul foofu fekk koo xam ne moo ko daq jàng fop te te demewul noonu kon li ñuy wax mooy jàmbaar amul ku ñu dimbali mu am waaw ñaan mi ngi fi ba tey incha allah mbokk yi kon ñu ànd ak sëriñ Abdou Guèye Ridial sëriñ bi nag bëggoon naa ñu wax ci ubbeeku Euh, nit boo ko defalee ubbeeku ba noppi te bëgg naa nga laalal ñu tuuti it ci boo ko ubbi boo ubbee ba noppi nan nga koy aaree. xam nga ubbeeku moom euh, wax naa ci ba sonn waaye duma ko tay ndax dafa mel ni ñi may waxal ci wàllu ubbeeku bu doon bu doon junniy nit la mën a la juróom-ñeenti téeméer yi dégguñ ma te li ma yor ci ubbeeku maanaam efficacité bi mu am xam naa ko. ndax bala ngaa laax lekk jaay da ngay laax lekk ba noppi waaw kay loolu moo tax Mm, ki nga xamante ne bii dafa ñëw tëju ci man li may njëkk def mooy seetal ko mbiram ba xam lu ko tëj ba pare. waaw damay ñëwaat seet mbiram ba xam lan moo ko tëj ndax ñii yii rek ñoo mën a tëj nit. rab wala ñu liggéey la wala cat jàpp la léegi nag ñett yooyu bu ma xamee ban la ci ubbeekaay yi moom ay façon la. Euh, am naa fi ay façon yi façon yoo xam ne mën naa koo lim pour nit ñi xam ne lii lu am njëriñ la bi ci njëkk mooy ki nga xam ne day jaay moo xam mu nekk ci marché di jaay. wala mu nekk bitim réew bëgg bari alal bëgg bari alal nag ak bëgg bari xaalis ba tey du benn léegi ki nga xam ne dafa yor bitigam di jaay wala place am xam nga ñeenti billets yi wala juróomi billets yi ñoo am Sénégal 10 000 5 000 2 000 1000 francs 500 muy 18 500 bu ñu la liggéeyalee wallu mag bi moom la ñuy wax wallu mag bu la neexee nga jël benn billet 10 000 bi nga dugal ci biir. bii boobu nga dugal ci biir dinañ la ko jox ba nga sant yàlla yow muy jaay bu fekkee da nga ne bitim réew tànnal billet ba bëgg bari la foofa nga dugal ko ci biir sangaay bi bu fekkee ne da ngay jaay nag yor place wala ngay eh, liggéey ci loo bëgg rek te bëgg ko bari la alal jëlal billet yëpp nga dugal ci biir sangaay bi mooy billet yi nekk senegal boo ko defee incha allahu rabbi billet yooyu dana ñëw ba nga sant yàlla kenn mënul tee nga am ci kàttanu suñu borom loolu xam-xam la bu wér beneen bi moom la ñuy wooyee euh, xulóobul xalaayiq jaaro lay doon liggéey jaaro bi bu ñu koy liggéey ñun ñu koy liggéey dañuy woor ñetti fan bu ñu ko joxee nit ki bu dee lijjantikat la wala ñi nga xam ne seen àll mënta toog ci seen loxo dafay àndaale ak li ñuy wax ñàppentaan ñappentaan ab xaaxaam la boo xam ne ñi ne ci àll bi xam nañ ko boo ko ci boolee di ko raay sa loxo benn takk jaaro bi loo am dina taxaw sa loxo te da ngay gis koo xam ne day am xaalis bu bari par jour mais du mën a du mën a taxaw du mën a taxawal dara loolu dafa fekk ne xaalis bi moo taxawul ci loxoom ba pare ba pare ñëwul boo dee jëfandikoo noonu nag day ñëw te dina toog te dina mën a di nga ci mën a taxawal dara loolu benn ñaar la ci beneen bi dañ koy liggéey Eh, boole ko or xaalis bérwér ngel waswasoor ak alxuraan bu bari suul ko sept jours sulli ko jox ko borom mu di ko diwoo incha allahu rabbi kooku itam dana bari alal ba sant yàlla loolu ay benn la ci yi nga yenn la ci yi nga xamante ne bi am na beneen boo xam ne fa tax inaa fatahnaa laka fathan mubiinan lañ koy defaree suratu fathi wa yansurakallaahu nasran asiisan ilaa axri aaya bu ñu àggee ci muhammadu rasulullaah am na noon lañ koy liggéeyee boole koo ngeer jox ko nit ki mu di ko sangoo insha allahu rabbi dina ubbeeku moom it ba sant yàlla beneen bi ci mbaamu sëf lañ koy liggéey mbaamu sëf nag boo ko déggee te xamoo xam-xam da ngay ne ak njabar la waaye déedéet mbaam kenn jëmbatu ko mu sax yàlla mi sàkk doomu adama moo ko sàkk ci coobareem kon xam ngeen ne càkk teeful suñu borom la jox ko xel jox ko ru jox ko lépp muy dund comme ñun buñ ko jëlee nag duñ ko rey duñ ko fees duñ ko def nen buñ jëlee sa tur yow ak sa tur yaay ak suratu kahfi fa isa jaa wa'du rabbi jahalahu dakka ba comme temps bi temps bi bariwul buñ ko jëlee buñ àggee ci baatu kalbuhum juñ egg rek ci suratu kahfi dañ koy génne dugal fa turu ki moom ñaan ki buñ paree dañuy sang benn bi dax ko mu dem penk benn bi soow gànnaar saalum ci ñeenti xibla yi kooku kenn mënu koo tee am alal te kenn ku ko liggéeyati mu dellu ci kawam ku ko liggéeyati mu yow def kenn dara ku la liggéeyati dina këpp ci sa kaw te itam képp ku la liggéey liggéey bon dana ñëw ba ci ba ci yow mën a la baal maa xam la defoon lii loolu tamit yenn la ci ubbeekaay yi boo defee yooyu yëpp ba noppi nag door def kaaraange nag waaw kaaraange bi mooy tax lu bon li nekkoon ci yow du mën a dellu siwaat te ku la liggéey du la jàpp ku la yéene lu bon moo cay dellu. léeg-léeg nga dem ci lu mel ni marché. fekk ñuy jaay ñoo bokk lu ñuy jaay waaye kenn rek ci ñëpp di jëm euh, loolu lu mel noonu lu koy lu koy indi. xam nga mag ñi dañ ne weñu suba teel ñëpp ko bokk waaye bu naaj wi tàngee ku yorul li weñ yi bëgg weñ dem bàyyi la loolooy li wér kon jàmbaar amul kuñ dimbali moo am. foo gis foo dégg diw rek am na lu muy diwoo diw diw diw diw yoo dégg diw gënu la yaay gënu la bàyyi gënu lay maam gënu la marchandise mën naa am sax yaa ko gën marchandise gën koo yombale te du tee nit ñi fa moom la ñuy jubali kon nga xam ne am na lu xew am na lu ne ci biir kon loolu bu leen dof ay Sénégal lañ xam nañ réew mi ni muy doxee képp koo xamante ne bi yaa ngi xëy di am dara man li ma lay digal mooy nga dem wuti sa dara jooju lu koy aar lu koy téye ba tax du yàqu ndax fii da ngay boo bëriwul dañuy bëri dal sa kaw kon ki nga xam ne dafa bëgg bayre njaay wala bayre place wala ubbeeku ci la muy def wala mu siiw ci am ca tur incha allah bu ñëwee ñu jàppale ko ci. Euh, wax nga ci wàllu ubbeeku wax nga tamit ci wàllu wërsëg euh, ni nga xam ne ni noonu nga koy liggéeyee ci alquran ba tey tamit ci wàllu ubbeeku tamit di nga ciy liggéey ci wàllu càngat càngat boobu nu muy demee. moom ñaari façon lañ ci am xam nga nit ki pour nga ubbi ko mooy li ma njëkkoon a wax rek foog nga xam lu ko tëj ba pare léegi eh, sangaay bu boobu ngay wax noonu ñu ngi koy liggéey ci suratu waaqiha waaqiha eh, Abdullah ibn Mas'ud moo nettali ci hadiis ne yonent bi nee na boo koy jàng guddi doo ñàkk am na nag secret buñ ciy liggéey ñun buñ ko liggéeyee day kullu xaayatin suy na linaas kullu xaayatin suratu charx buñ pare day am or moom it ak xaalis ak bérwérngel ak parfum cheikhul islam wala misk kooku itam loo tëju tëju tëju tëju wala li ngay am doyu la incha allah boo ko jëfandikoo da nga yokk ba yëg ko ci kattanu suñ borom waa loolu moom euh, benn la ci moom itamit euh, ci wàllu am-am yi benn la ci. toll nañ jamono ci xam ne nii fii nii nit ku ne war ngaa mën a aar sa alal ndax fii ne nii sàcc si moom daanaka kenn mënatu la yar sa jur. ngir nga mën a aar sa alal ba kenn bañ koo sàcc. Euh, loolu ban gàllaaj nga ciy liggéey. ku nekk war nga sa alal nga sàmm ko bu baax a baax ba kenn du ko ndax liggéey sa alal ba mu lew la nga def ko ci magasin wala nga def ko sa kër wala nga jënde ko ak jur ay nit ñëw yenu ko dem nga tolluwaat à xam nga loolu lu métti la. moo tax képp koo xamante ne bi yaa sa place wala sa kër nga bañ sàcc tàbbi fa. incha allah rabbi liñ lay jox bu ñu la ko joxee doo xëy di xañ ab tànk mukk fii la tànk ba jaar ak fii tànk ba jaar incha allah doo am dañ la aaral sa alal ba kenn du ko mën a sàcc incha allah. léeg-léeg nga gis nit ñu di ko tudd fu ne te tojul fenn léeg-léeg nga gis koo xam ne nii mu ngi def lu rëy te kenn du ko tudd loolu mu mel ni kon am bayre la ak ñaq bayre yow bayre noo koy liggéeyee. waaw xam nga bayre ay façon la am na boo am na koo xam ne day wax ci mbooloo. pour bëgg li muy wax nit ñi di ko dégg am na koo xam ne daa ne ci barab bëgg ñu xam ko am na koo xam ne daa ne ci ab gox bëgg ñu xam ko wala mu nekk ci am réew bëgg réew ma xam ko yooyu yëpp bayre la yiñ ciy defaral nit nag euh, dañ koy li am na ci boo xamante ne bii ñu ngi koy boole ak xobi new xobi waswasoor xobi alom ak euh, sóoratul sóoratul wanañ wanañ mi isaa hawa ma dalla saahibu ko maa hawa moom lañ moom déedéet rek moom la ñuy liggéey boole ak boole ko ak sept pièces yu cinquante francs waaw juróom-ñaari fan yi nga koy sangoo saaboo sangoo pare dangay ngay seppi benn saraxe bare bi day àndaaleeg bayre wërsëg ba pare itam nit ñi danañ la xam ndax ay sant ci sant lañ koy liggéey te sant bu ne famille la su ko defee juróom-ñaari fan yi ko nit kiy sangoo du laal du laal saabu kooku moom boo ci paree bari na ñooy dégg fii ñu siiw boo leen ne xam nga sëñ Abdou Guèye ñu ne la waaw loolu moom maanaam am nañ am nañ asim loolu yàlla laa koy seddeel aw ma ci sikki sàkk bari na ñooy dégg seen tur ci rajo yi ak ci télé yi boo leen ne sëñ Abdou Guèye Ridial bu ñu waxee dëgg te yàlla tax ne la xam naa ko bu baax a baax waaw te loolu loolu bayre la yoo xam ne jëflante nañ ko ak ñoom tax parce que bayre bi ñu lay liggéeyal ñun du bayre boo xam ne da ngay na am ay naankati ataaya ak ay lekkati ceeb bayre wërsëg la boo ko amee ren boo ko amee ren balaa diwén ñëpp xam ne yokk nga incha allahu rabbi jërëjëf euh, sëñ Abdou Guèye euh, émission bi am na solo lool ndax lu bari feeñ na ci ci lu nëbbu woon euh, ñu ñëw nag tey ci jigéen joo xam ne nii day def njaaloo bëgg koo bàyyi dem ba bëgg koo bàyyi te mënu koo bàyyi mu ñëw ci yow su boobaa ndax am nga ci ay tegtal. waaw dañuy delluwaat ci alxuraan ndax maa faradnaa fi kitaabi min shay'in yàlla nee na fàttewuma dara ci téere bi. kon loolu mooy tax nit ki nga xam ne njaaloo nag bu ñu ko waxee euh, du du wut ne rek jigéen ji amul borom kër moo koy def jigéen ji am borom kër day dem de doo wut ne jigéen ji rek mooy njaaloo ki ki amul borom kër tamit day def day njaaloo ndax lu ñu ko tere boo ko dee def rek yàlla def ne laa taqara bu zina bu leen jege njaaloo la wax jege kon xam nga ki la ne bul jege waxul la nga laal waaw kay léegi nag góor gi nga xam ne dafa romb yàpp wu ñor di dem di reer ci médd loolu li muy tekki mooy wocc fi sa soxna mu lew la nga dem di ànd ak yeneen jigéen yoo xam ne lew la wala jigéen ji nga xam ne dafay wocc borom këram mu lew ko mu wàcc ko fi di ànd ak yeneen góor léegi nag soo bëggee bàyyi njaaloo googu boo ñëwee ci ñun moo xam ngay góor moo xam mu jigéen dinañ la jox loo xam ne boo ko jëfandikoo nañ la ko waxee bu dee sa borom kër dana bàyyi dana yem ci yow képp bu dee jigéen gi tamit dana yem ci borom këram képp incha allah rabbi loolu wér la. kon ñu toll fi ñuy jeexale sunu émission ndax li ñu cërale woon ci wàllu waxtu léegi moo jeex ñu ñëw nag ci koo xam ne ni yaa ngi sàkku ak moomeel lu mel ni kër walla place wala loo xam ne daal yaa ko moom ndax kenn ku nekk boo sañoon nga ndamoo leen ne lii maa ko moom ku mel noonu nag bu ko loolu dabee mu ñëw ci yow ndax am nga ci ay tegtal. lu yomb la ndax alxuraan ñëw na ci. Hmm. ka annahum bunyaanun marsuusun hmm. alxuraan ñëw na ci lépp li ma wax léegi rek ma faratnaa fi kitaab min say ki nga xamante ne bii dafa am ñaari façon la ki tabax këram ba noppi ba muy bëgg a àgg te mëntoo yeggale. am na yu yuñ koy jox ci ganaar lañ koy liggéey incha allah kër gi dana yegg ba mel ni mu ko bëggee ki nga xam ne dafa bëgg kër nag wala mu am ab terrain te amagul lu mu fa def wala ki nga xam ne moom amagul sax terrain bëgg kër gu mu dëkk yooyu yëpp alxuraan ñëw na ci bu yàgg kooku bu ñëwee incha allahu rabbi danañ ko liggéeyal loo xamante ne bii diir bu gàtt dana am fu moomal boppam loolu benn la ci dinaa wax tuuti itam ci wàllu rab ndax rab ñu baree bari dañ koy faj te am ci kumpa ndax rab fi ne nii bu jàppee nit ki daf koy solal la mbubbum perméable baatin noonu laa ko mën a misaale moo tax ngay dégg ku naan man de rab bi may jot faj naa ko ci téeméeri sëriñ fekk na mbubu perméable biñ ko solal en li tax fekk demoo ci ku mën a xotti loolu moo cat ñoo yam ci côté boobu. waaw feek feek xotti woo mbub moomu ci ndax fi na ne ñun ba ñuy jàng loolu balaa ñu laa jox luy dindi cat wala luy faj rab am na benn sangaay bu ñu lay njëkk a jox boo xam ne mooy ubbi sangaay bépp rab ak cat liggéey yu nekk ci yow loolu da koy xotti. pour sangaa yi ñu lay jox mën a tàbbi sa yaram. waaw loolu nag fekk xamuloo ko mën ngaa dem ci téeméeri sëriñ te doo am saafara. am na solo lool kon euh, ñu toll ci kàddu yu mujj yi ñu di la bàyyi rek nga tàggatoo. ñu santaat yàlla borom jaam ñi bu baax sant sëriñ Touba mi nga xam ne lépp mooma moo nu defal lépp. noo ngi sant yàlla mi nga xam ne eh, ci kàddo moom moom la ñuy dimbandikoo saa su ne di sant yàlla bu baax a baax di sant Serigne Touba di nuyuwaat bokki diaspora bi di nuyu mbokki jullit yi ak taalibe yi di ñaanalaat sëñ Muntaxa sëñ Basiru suñu borom may ko fan wu gudd ba mu àggale ay naalam ci daraja lislaam di leen sant yéen tamit bu baax di leen ñaanal jàmm ak tawféex asalaamaaleykum wa rahmatullah kon mbokk yi mu doonoon Serigne Abdou Guèye Ridial ñu bi ñu def ak moom jotaay boo xam ne ku ne mën nga cee jàngalu bari